ñëpp yëg ngeen ko kilibu si loo leen nekk génn na mais couplet dib allahu akbar gars yi dañ mën raw bare dañuy bind couplet dib laa leen di détaillé benn par benn déglu leen fii si loo ne parce que maa ngi si jàmm si loo leen ne nga ni raab ni ku dàkk ji sàcc si doo leen yem lii moom confirmation nee na <laughs> nga ni rab bi da dàq di sàcc fis doo leen yem doo samp sa tànk si banque si noonu lay lekk ñoo lekk xaalis si rab lay yee. tànk ci banque si noonu looy lekk ku moom loolu kat kat boo ko moom dégluwaat leen lii gi ñoo lay nekk. sànni de xeer bi si ñoom lay yem saaga de ndee bi si ñoom lay ñoom rek dafa confirmer li mu doon wax que ni moom parente pare na si ay affaire de clashante yooyu noonu parce que Dip Dip man man personnellement dama ko si nit yoo xamante nii j'aime trop bi mu am la à chaque fois boo koy dégg ci interview am day wax naan ñu ngi ëpp te ba tey wax ba tey gars yi jël ñu leen foog ñu dañuy caaxaan. moom yenn poste yu mag sax mosoo gis saa ko bu ko occupé te gars yi caaxaan moo tax film daf koy confirmé waat que ne moom classe bi ay affaire yu yooyu noonu pare na si. so ñu naan saagate ndey bi si ñoom lay yem sànnante xeet bi si ñoom lay yem et puis à un à un moment aussi il faut gars yi xam ne tamit kenn bi nekkul nekk à chaque war a avancé moo ko moom am Sénégal wala ñu as foofu dëgg wàllu lii. xajal ma fépp ñu yooleel leen xajal ma fecc ci yooleel leen seen xolay métti si loole si loole. déggal loolu da ngeen a tekki ci kanam yi ci xatal yooleel leen xaw ma laaj lan ma fecc yooleel leen gars yi wóorul dama leen ñuy seetaan day liggéey de karab karabalik day liggéey foofu. genre clip bi ñu mu tourner quoi li du ay clipu 500000 ak ay 200000 li xaliss mo koy def gaay yi dañu liggéey de mais biru tam biru c'est complet ah non mënoon ngaa ñëw de man ay naa ma àll sama benn couple sax ma ñaf ko ci couple bi tamit di biru dañ ci wax si loolu leen ne que ça